yenen jàpp jaboration la yeneen vibes yenen vibes bi dama am sérieux problème si live. ok anyway espérons que euh, dina tane quoi wow espérons que ça va marcher parce que tey j'ai des sérieux problèmes de très sérieux problèmes pour faire ces lives ok waaw mu reprendre la diffusion xaw ma waaye bu soobee yàlla di ngeen bàyyi ma live sama live bi wax sama gars yi salaamaaleykum ah, tey moom euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment j'ai eu de sérieux problèmes pour connecter parce que dama gars yi dañuy dindi affaire yi pas pas possible ma obligé sax ñëw bu fini pour def live hein. Ah, sunu suñu studio bi ba ma ngi siyaar ñëpp di béggee ñëpp hein di béggee ñi nga xam ñi ngi bàyyi xel di wax ni Karim Gueye la télé ci poste xam ngeen ko bu baax baax bon live tay du gudd vite fait hein. on va essayer de faire un truc très rapide n'est-ce pas xam naa nag dina metti mais bon je vais me débrouiller avec euh, le euh, peu de matériel que j'ai bon anyway parce que ku nekk foo nekk rek mën nga xéxal sa réew ci li nga am ok d'abord damay wax ni tay live yi euh, maa ngi présenter man la Abdou Karim Gueye ñu gën ma xam ci Karim Xrum Xax membre mouvement nitu deug may def ça su ne ay télé ci poste di wax ci actualité dëkk bi

awma xarma yalla ak vidéo bu bees ma ko encore voilà ñu koy delloo ci ay détails awma problème ak vidéo bu bees je le connais même pas c'est-à-dire mën na sax am sax xamana mën naa bëgg sax la leen gëna mëna mën parce que maak ñom ñoo bokk sëriñ parce que dama leen dégg ñu way Baye te dégg na ay talibé Baye lañ dégg la ci am te am yaakaar ni ay talibé Baye lañ parce que amna na quelques nit yu ma xam yo xam amna am nañ link ak ñoom donc juste rek pour wax leen ni awma problème ak vidéo bu bees mais sama problème mooy non dañ ñun dañuy attaquer imam yi fekk nañ def naka su non on attaque Macky Sall dañuy attaquer opposition bi dañuy attaquer serigne si dañuy attaquer rappeurs yi dañuy attaquer donc amul ku ñuy épargner ci ko xamanteni dafa jël askanam wan len ginaaw chacun est libre nak ku nekk am nga droit ànd ak kula neex ku nekk am nga droit far ak kula neex mais propagande politique fen bi cest il faut pas mentir les gens ngeen bal ma ci yenn mooy muy utiliser mais manam fi Sénégal toll actuellement ci jafeñ-jafeñ li li xew ci réew mi dama leen ñaan partager ces vidéos là fi Sénégal toll ci jafé jafé fi li Sénégal daj li nit ñi di daj pour dundu li nit ñi daj pour faju mbënd ma ngi ni taw bi gis ngeen ko depuis combien d'années man wax depuis depuis Abdou Diouf depuis Abdou Diouf ans sax lay wax fekke ma ko mais bon xam nañ ko parce que lolu Abdou Diouf yegali Abdoul Abdou Diouf abdoulay wad Macky Sall gën yes lan la fi lan lan mo fi jaar ah ñuy tag politicien wala ñukoy wax lo xamni askanu Afrique askanu Sénégal ñi ngi dund dund yu méttee metti ci angle yëpp nag du walu diiné han ah, ci diiné bi respecté wuñ ko du walu du walu xam-xam han ah, du walu santé du mbay du dund du infrastructure du dara lo xamni day jëriñ réew mi. vidéo wu bess dañ def saan bu bo xam dañ ko def di tag di tag Macky Sall han ah, vite fait bugguma live bi gudd parce que dañuy saboter sama connexion bi donc il faut ma gaw ok légui dañuy déglu saanu vidéo bu bees bi vite fait rek vite fait après man ma ñëw xam nga après ñu waxtaan ci vite fait. njëgu sound bi di bees te ñëw vite fait excusez-moi bon anyway ayca ñu dem ñu dem ayca ayca maa ngi jégalu maa ngi jégalu dama am problème bu ndaw rek moom je vais le faire ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan pour ma bañ ko def mais incha allah je vais suñu Sénégal ci kaw suñu drapeau ci kaw ak kaw suñu Sénégal ci kaw yaa ngi si ba jant suñu Sénégal ci kaw. a ngi gis bu baax. ci kaw suñu Sénégal ci kaw yaa ngi si ba jant mat lañu jiitu meeyo ba du tal bopp soxla sa meer mosu ci teel a ko.

nation village bari am courant am ndox dañ ne mag ñoom ci centre bi ñi wax ni taxna village yu bari am courant am ndox d'abord am courant am ndox ndox bi kan moko yott ya Mansour Faye mo yor ndoxu Sénégal mo moo nga xam mo géré walu ndox bi Sénégal maintenant

ut réew ñun dafa mel ne ay étranger lañ tax ci réew yi lañu bokk ñu benn ku bokk état bi ku ñu dimbali situation yu métti la ñuy dund Mansour moom moo waxoon ni ñoom daan na jox courant si biir kër yi boobu ndax amaana ñu ngi ni muy dund yëpp li ko mooy nga amee sa ay xaleel nee bi fekk la day day sifur amul ndox amul courant lépp lëndëm yi mënoo pousser sax ndox lëndëm mënul dem fenn bëccëg ngay def lépp xool suñu xale yi mënatuñu wér xale yaa ngi naka ndoxum siti ndax mënoo leen yemale xale kenn mënu ko yemale ci xam lii koo ko di gis si ay nit yu kaa dundee seet jafe-jafe ndax ndax li noo participer si nit ñi si musiciens yi ak si leneen ak leneen tey bu ko dimbalee woon ñun askan wi si daanu am yàlla am yoneen bu ñëw moom te yàlla te génn ñu ba Macky Sall ko. xaalis yi moom def si musicien yi lan nga def ko si askanu gendar Mansour Faye ñoo nga def ko si askanu gendar pourtant xaar nga doon mais ñëpp yëg na ñun ñun ñun ñun loolu yëpp dëkkuwaay moo gën intéressé jox ñu dëkkuwaay lu gars yi dëkk si normal. yéen yéen moom fii yéen a liggéey ñëw leen ngeen wax ay citoyen lañu dëkk ndar juddoo fi yaroo fi màgge fi yàlla indi ndogalam kon dañu am droit ñu indi ñu ci logements sociaux yi am na droit courant ma wax sànq ku ci maire bi naan amu leen droit am courant ndax da dëkk ni temporairement dëkk ni temporairement du la tee am courant trois ans wu ñu nii ñoo ngi. suñu ay dëkkuwaay yu baax mu nekk ay këru maam dañoo judd ñun ñi ba ñu juddoo yàgg na yàggul daanaka boo dee tuur danaa tey la sax saa bi mu laa tuurale fi la gàllankoor fi la mbaari nekkoon fi la géttu xari nekkoon daanañ fi la sa def ay mbaar yoo xam ne mën nga fi fi nga añee ba ba jënt so nga doogaa fëtu sa ay néeg te loolu yëpp yàlla ñu naan biram mën a toog noon ñu ñëw jëlee la sa kër bu fekkoon dañu seetaan jël siwnu kon du metti waaye kon nag nanu àggale seen yéene si ñun lekkatu na xolu bey ok bañ ko trop hein donc li mom vidéo bi ñëpp seetaan nañ ko si internet bi c'est-à-dire dama ko jëloon rek pour wan pour wan len par rapport ak euh, sama bi nga xam vidéo bi def nañ ko pour wan len ay affaire yu ndaw rek yo xamni c'est très important pour ngeen bàyyi ko xel parce que ñun au fait man je suis pas là pour euh, critiquer ay vidéo ça m'intéresse yitteeluñu ma sax mais dafa am propagande politique boo xam artistes yi daf ci am rôle bu am solo buñ ci wara def euh, mënoo nek dëkk yow même bo dé chrétien musulman nga ni gëm yàlla nga gis xeet yu mel ok ñom biñu waxol waxee biñu waxé euh ñu ah, beaucoup de choses c'est-à-dire c'est-à-dire vite fait rek quand vite fait rek quoi

du famille. ok ñu dégg bi dafa am problème rein waaw problème rein la am benn rein bi moom amoon problème léegi ñaari rein yëpp léegi moo yàqu waaw dañuy obligé di def dialyse te dialyse bi hôpital Dantec moo fa am ñoo xamante ne douze machines la waaye douze machines yi ñiy rang moo bari dangay gis sax ñu rang deux mois bay dugg trois mois deux mois trois mois am na ñoo xam ne sax dañuy rang ba seen rang yi yegg si ñu ne suba la ñuy yegg si wala ginnaaw suba far ñoom ñu dee waaw ñun dañuy obligé dem eh, fay ci clinique yi clinique yi chaque semaine bu jot dañuy def dialyse ñaar yoon dialyse semaine bu jot ñaari yoon jalis la ñuy def waaw te fay bi day nekk cent vingt mille lañuy fay te loolu baadoola mënu ko patron sax mënu ko sàkkantam ak baadoola mënu ko dafa metti waaw machine yi léeg-léeg hôpital Dantec machine yi léeglé dañuy paam lii daal nguur gi war na cee wax gouvernement bi war nañ cee wax nit ñi sonn nañu nit ñi sonn nañu feebal bi dafa bari léegi Sénégal te faj bi demee demeewul noonu xam nga ne cent vingt mille par semaine bu jot nga def ñaari yoon cent vingt mille chaque semaine loolu buur sax mënu ko sàkkantama saadoo la dafa metti dégg nga ma ne la da ngay rang deux mois trois mois bala sa rang di yegg sa nit ki de ok léegi loolu nag hôpital Dantec bii lay xewee bon quand Bidew Bess nous parle que Macky Sall programme am santé bi tarkal la def sound di def propagande ñu jox leen aralu ah, Sénégal bi ngeen ci jaay sen qui di jaay sen diiné wéddi sen bop taxaw lan ngeen di wax fam bi ni lan ngeen di wax ñi hôpital des, ndax ay ay insuffisance rénale machines état du Sénégal dafa jox douze machines Dantec machines yi matul ñu may nañ leen ko personnes ñoo nekk diran bla ñu dañuy parce que da ko deux fois par semaine alal boobu yëpp lañu jël jox leen ko yéen ngeen di prostitué wu ngeen baal ma ci terme bi maa ngi jégalu ci ñi seetaan ñu jël ko taxaw naan dañuy woy Macky Sall di ko santé ay louange naan ay il est extraordinaire il est superman il a créé ci il a créé cela ok cest xam nga am lu am solo loo xam dafa baax ci communication c'est très important bu ñu jugee ci loolu léegi ci biir vidéo bi ñoom dañu wone arena bi quoi mooy euh, arena bi quoi je que arena bi euh, je reviens bi. bokku ñu benn parti bëgg tal boppam soxlawu askan wi musu ci defu ñu politique ñu benn parti waaye war nañ la seddal we say thank you ñu lay ñaan ñoo Check out ta We say thank you. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus modernes de Brésil. Nyonsa Ghana. La ville moderne par Check out ta Ghana. Je renouvelle nos félicitations et notre soutien je pense que vous avez euh, ci biir vidéo bi monté image peut-être je vous prie hein, partager image c'est très important et que le message parle le message passe que jot ci arena bi arena bi nga xamni ni qui jël ko jël def ko ci vidéo bi def li ne jam defal train express train express fi muy fi muy jaar yépp ay lañ téggi da dañu leen ont dañuy fekk nit mu yor cinquante mu yor kër def ci 50 millions ñu jox ko 30 millions may ko 10 jours pour mu fofu loolu moom leer na kenn xamul lu xew jam ñaaju ok ñu jugee ci loolu ah bi bu bees lan ngeen di wax ñi nga xam ni jalis mi ngi la rey amuñu machine bu leen faj ñu dem di fay ay soixante mille francs par jour deux fois par semaine baa doole yi def loolu lan ngeen di wax tamit ok daal di ñuy dugal si biir tàmb gi ndox mu ñëw gu si ñun boo paree nga xool ndax suñu foos yi yëpp di ci dem amul yaa may dégg dañoo war a léegi ah ok ñu dem jëli lii comme ndimbal soxlawul sori de lii c'est à nañ te dañoo yor xale yu tuuti ay tuut tànk ñu ngi nii kenn wératu ci ndax ndox mi yaa may dégg dañoo war a def ay canalisation bi defar stade bi ndax suñu foos yi yëpp di ci dem amul kenn ku fi am canalisation fi amul benn arrondissement ñu tax te bëndal ko ay bën bën yoo xam ne kër gi stade ginnaaw ci bën bën yi fa ci lu nar a bi day ñëw ñëw ñëw ci kër yi xale yi di ci dugg xale sax mën na ci lap deux heures du matin nelawul fii danaan taw chaque année man dix ans maa fii dëkk ren laamu mos a inondé arène bii boo pare nga xool dañoo toj seen arène bi ba kaw si âge fi mu ne dañ koo feere ba mu leer nañ daal di ñuy dugal si biir tàmb gi ndox mu ñew dugg ci ñun sa yëkkat ñetti fan ak ñetti ñet ñetti yoon a ni ci si wër c'est pas normal arène ba la fa babbi ko fi la jëm ci ndox mu muy jaar dafa war normalement ba ngay defar stade njëkk assainir nga doog defar stade ndawi nguur yi dëkk ci gox googu leen kenn gisu bi li amé ba tay ko ñaawlu suba woon nañ ku ne ñun ñëw ba sañu moyen la ñuy jël ñoom la ñuy génne ndax lu doon dóor gu fa ñoo tax képp ku ñu doon seet ba ba léegi fa la tax taxaw kaw benn autorité kenn ticc te fi mu ne bu ñu ne élection tey nga gis ku nekk ku nekk gàddu gàddu ki say ki ñëw naan woteel ma boo bu amee fay woteel war nga am fay nit ki boo ree da nga war am fay doo ko di di ay chiffres mais ay furaay yi ñooy dañuy dem Fatick. ay yàqu-yàqu kenn la ñu ko foofee ci kër yi. ok déjà déjà euh, daf dafa lii mooy arena bi arena bi nga xamante ni moom lañu inauguré bari ci démb c'est-à-dire arena bi am assainissement Pikine Pikine amul assainissement bi dee bu bees lan ngeen di wax ñii yéen Pikine soriwul quoi xam nga moo fi nekk sax naan ay di sori ah, je vous ai montré image boo xam ne ndar la ñu di wax xam ni amul fuñ dëkk ndax condition yi ndax yu ni te Mansour fay ministre bi nga xam mo géré walu ndox mi fofu la dëkk neen ngeen santé bi sémi bi nice la ngeen wax ci femme bi expliquer affaireu dialyse bi dante ni ñangi té kon ay prison maintenant lan ngeen wax yeen lan ngeen wax ñi ni ñi nga xam dañu tabax arena stade sen wet te amuñu assainissement lan ngeen di wax sari légui buñu joggé fofu ñu dem ba tey pareeguma pareeguma ok vite fait rek mu ñëw ah vite fait ma ñëw rek quoi ok ma may la image vite fait xool rek lu ah. ñu fi ñun duñ ay mbër arène bi mënoon na koy jam naajo rek maa yóbbu fekk lii mooy vrai liggéey amateur liggéey estat prévoir ay canal fu ndox mi di jaar ndox mi ci biir kër yi ok loolu aussi luy jàll c'est-à-dire xam nga duñu fi nekk parce que Sénégal d'habitude boo ful wala nga wax lu am solo ay non kii ma li ñàkk ñun ça nous intéresse ce qui nous intéresse ban Sénégal toll fi Sénégal toll ci jafe-jafe ak ci problème ba nit am taxaw ñu jox ko xaliss yeen bi réew bes Macky Sall lan la leen jox 490650 milliards wala budget Sénégal la leen jox ba ngeen jaay seen ngor ci gouvernance Macky Sall amul gouvernance bu ko gëna yees ba tax ngeen jaay seen ngor ni ah ñun di tag président di ko xalamal lan ngeen di wax ñi fièvre capital da yaa yeen koy gis ay preuve yu leer la attends bu ñu jël image bi ni ok déglu leen paa bi li muy wax. waaw noo tudd yow. ah noo tudd. El Hadj Ousmane Sow. naati fan. dikk Ndiobène Dimb. fii mooy Ndiobène Dimb. fii mooy Ndiobène Dimb. waaw fii moom nawet moom nu mu demee. nawet bi nu mu demee amuñu dara. amuñu dara. am na ñu fi jiwoon di secteur fukki bëri goy dugub euh, gerte am ñu ji juróomi bëri am ñu ji ñenn lépp naawoon. lépp naawoon. li fi jëlee nag. ay ci ay mbaam ak i xar bari na. bari na muy leen di ni xarañ muy Kër Matar Diop. muy dalax muy njaw njaw mm. muy mboojeet gàdd fangaar jaxaay sagata dara amu fi ak daru mar naan lépp eh. dara baaxul dara dara baaxul lépp yàqu kenn musu ko gis xanaa lépp yàq kenn musu ko gis est-ce que mës nga gis lu mel ni yow gis nga juddoo musuma ko gis gis naa am ñaar at fukki at ak ñaar musuma gis lu mel nii sama juróom benn fukki ñaar musuma gis lu borom indi waaw ma dara amu fi dara amu dara amu fi ok ah, bu lan ngeen wax bi am 67 ans juróom-ñaar fukki at ak ñaar sax waaw 77 ans lan ngeen wax bi la ngeen di wax pa bi ni tay bo len taxawé di fecc quoi tay bo len taxawé di wayal Macky Sall di xalamal la ngeen di wax pa bi la ngeen koy wax la ngeen di wax tay euh, tay quand on parle de ça maintenant gis ngeen li xew yeb Sénégal li fi xew ben taw la taw Dakar Dakar ya boobu ba léegi yàgg na même problème yi lañ nekké ñu nekk ko ab Abdou Diouf nekk ko Abdoulaye Wade sen yoon nekkul ci Sénégal li wuñ ko jël ay milliards di fowé ay Marème fay di jël àllu yomi diko di jël argent contribuable di ko jox ay rappeurs ak ay artistes ay Mamour Sakak ay nit yo xam tekkiwuñ dara jël xaalisu rew mi jël ko diko ko jox ko ay mbeur diko diko ci ay diko jox Gaston meng pour ay lamb ay bidé bu bess yeen tay. lan ngeen ni wax peuple sénégalais bi lan saan bi ngeen wax ni lan ngeen wax peuple sénégalais bi légui li yeb bu amé ci jafé jafé ci dund ci jafé jafé ci bay juri di dé ci all bi nit ñi diko dund légui après légui moment bobu non moment bobu Macky Sall mi ngi fecc ok salir, então, eu sei para sais imagem, ndax mais juste rek pour wax len pour pour war len leen yenn affaire yi ngeen comprendre c'est-à-dire ñun li ci djublu moy euh liñ ci djublu moy dara moy juste rek euh, xam nga dafa am lo xamni c'est très important et puis c'est fondamental pour ngeen xam ko ñu lijeent ñu expliquer lu ngeen comprendre ko euh, euh moy Sénégal réew le mo xamanteni ni nii ah réew la moo xamante ne yu bare bare bari Sénégal da ko waroon am amu ko yu bare bari politique dañ ci waroon taxaw taxawuñ ci yu bare bari. Sénégal da ko ron dépassé moment bi ñu ñu won tollu fi ni parce que dafa bëri yo xamni xew fi lo xamni politiciens waruñu mën a gérer ñu fowé ko yow nak nga mëna taxawé arena tabax stade ba koy inaugurer ba paré te ñu nekk ta amoo amul assainissement bala nga bëri do lek bala nga bëri do am fo duggé shot mu dem ndox mu jaar assainissement bala ngay tabax te nit ñi ñi comprendre lul d'abord dama koy wax mu lèr hein ah. dama koy wax mu lèr li nit ñi comprendre lul hein ah, li gëna a li nit ñi comprendre mooy il faut nit ñi xam ko ah chinois yi aide la lii aide la 32 milliards la chinois yi dañu ko may defal ñu ko ñu ne ñu ne ñoom ñoom ñoo def 30 milliards ay fen yi ngeen baal ci mots yi may utilisé yëpp ay kàcc la dara du ci dëgg ñu ci jublu du dara lu dul leeral rek ni amul rappeur amul rappeur amul mbalaxmaan amul artiste ku mu neex voteelal ku la neex faral fu la neex mais programme def ay sound di bind di fen ñun ñoo ko dul nangu ko nangu ko il faut ñu leeral leen tay bo ne sa sound ne Sénégal ñu faju nañu def propagande ñi nga xamni xamuñu lu xew ci ci région yi nak ñi nga xamni xamuñu lu ginaaw ginnaaw gin gin ñu dégg sang bi fecc rit bi dal moment bo président bi def ci léegi léegi pour mu clair quoi pour mu leer ñu baña pet pet temps si yenn détails yi quoi baña pet temps si yenn détails yi quoi Sénégal ci kaw suñu drapeau ci kaw a kaw Sénégal ci kaw yaa si ba jant sow suñu Sénégal ci kaw Gaynde Njaay ci kaw a kaw Sénégal ci kaw yaa si ba jant sow mat nañu jiitu ne ba du tal boppam soxla wu askan ne muskite la defuñu politique bokkuñu benn parti waaye war nañ la seedal ni yaa ngi liggéey réew mi mu Gaspard Koné we say thank you ñu lay ñaan Président ñoo sa gannaaw ci kaw ca we say thank you ñu lay ñaan Président

yéen yéen vous êtes où mais ñaata lañ leen fay pour ngeen jaay ngoon fan fan ñaata lañ leen fay ñi nga xam dañu am jafe-jafe ndox hôpitaux yi nga xam dañu am jafe-jafe ndox pour xale yi judd jigéen ñi ñuy ci ay saret di leen ay kilomètres pour ñu wasin ñoom lii lan nga leen yi wax li nga xam ni ay resté seen sang bi mais jox pour def prostitution di jaay seen bopp nii jaay seen ngor jaay seen diine jaay seen lépp nii comme ça c'est quoi le problème Macky Sall même su day am ñaari mandat fi def ans même fekk fekkee ñaari mandat lay am sax mënu fi yagg bu tax ni jé sen gorni bon xaliss la ben taxaw ci sen gor et puis ngeen yi fenn quoi c'est-à-dire mais fenn yi pour lan les mensonges là pour lan lam moo ngeen won ginnaw ñi ni comme ça fekk da ngeen yaakaar ñi no dof yene ngeen nax seen li ñu fi wax yépp ah li ñu fi wax yépp Sénégal amna Sénégal sari Sénégal dafa am ay richesse yu bare bare yu fi nek Vous voyez ce que je vous dis, Sénégal, il y a des richesses qui sont Pétrole, pétrole, il n'y a pas de monde, il y a des gens ont expérimenté, ils ont clairement le pétrole. Sénégal a 9 puits. Le puits peut gagner 826 millions, 826 millions de barils de pétrole. Puis vous n'êtes 9 puits, puis vous n'êtes 826 millions de barils de pétrole. Est-ce que vous avez expliqué 1 million de barils, qu'est-ce que c'est 1 million de barils. Vous n'êtes pas use, vous n'êtes pas use. 30 ans, vous n'êtes senegal waron nañ sax waron waratuñ sax waratuñ sax fay essence essence juróomi dërëm nga xori jëndé wala nga wone sa carte d'entrée rek jënd essence senegal war nañ jël étudiant yépp fay la ñu à l'extérieur dem jàngi senegal waratuñ fay impôt senegal war yu lu bari senegal waratuñ ko def kenn amul waratu nit waratul fay courant nit waratul fay ndox yoy yépp richesse yoy nekk fi président bi nekk fi amul benn jom nit ñi nekk ci ay jafé jafé di fébar duñ faju waxatuma la sax ay courant ndox nit ñi buñu faju ndox mu ñu amuñu ko nit ñi nelawuñu amuñu courant amuñu ndox dëkk ci ay ndox ñu stade ko kaw kenn waxuko ba paré ak pauvreté nit ñi ngeen dégg pa bi wax fan la fan lañ après légui ak yoy yëpp pas. Ah regardez c'est le président qui danse Les magasins, les quoi cest à sans problème. Euh, la question que je me pose, quoi, moi, au fait, Macky Sall, lan mais qui lan lay lan ah? ok dina fête parce que le fichier électoral bi nous voter. ñu Nous sommes ci voter Nous voter ans 15 ans voté nga voter, fichier électoral ok nga jël sa carte électeur sa carte électeur sa tur nekk photo du ci nek sa jigen moo nek loolu yëpp am ah ñu ko mu am mais Macky Sall il danse quoi ñi ñangi dé ci dëkk mu fecc quoi di fecc suñu kaw ni di day dox sen main day jëm a gëm day sen main. moyen pour wan que le peuple est avec lui C'est archi faux il faut mu xam le peuple lui a tourné le dos il faut mu sari il faut mu xam ni le peuple lui a tourné le dos il faut Macky Sall liy def du dëgg du yoon askan wi il faut ñu. jóg il faut ngeen jugal réew mi il faut ngeen xam ni seetaan bi yëpp parce que quand Macky sa mëddu la xam nga excusez-moi un voilà ok anyway parce que bu ñu nee ñaawal ah, ñaaw di fecc du ñu ñaawal askan wi ñi ñaa ngi am ñi ñu fajuwuñu ñi ñu lekkuñu ñi ñu naanuñu ah yow ñu woyal la ngay fecc di tëb di taal ngay fecc maintenant kan kan moo koy wax bidéo bu bees génnee seen sound fii aw di fen naan ay protestant émergent ak émergence moo am Sénégal amul benn angle benn angle boo xamante ni Sénégal développé na amul benn angle yéen a ko déggandoo ñoo ko gisandoo ñun ñëpp àll beeg jur yaa ngi dee dara doxul amul lenn lu def loo xam ne doxal na Sénégal yéen pour dox sunu maay quoi ñun ñu ngi fecc ñu ngi ay affaire sàcc la lii léegi opposition bi 81 partis politiques pour lan 81 partis politiques pour lan mouvement yi doo leen booloo nekk benn parti politique yi booloo nekk benn ñu jël fi Macky Sall mi pacifiquement plein jéem a def loolu leen bopp ngeen ne fi di wax ay détails yu ñàkk fayda ku problème égo parce que ku Sénégal ñor doo gis sa problème culture personnel loolu il faut mu leer ah ku Sénégal ñor doo gis sa problème culture personnel do ko gis kan moo de nit koo xam ne Sénégal ñor na la ci ñi taxaw ci kanam média bi di wax kan moo ci le vrai discours kan après il vient pour nous dire non c'est Sénégal machallah. musique après Macky Sall di fait quoi il se il se permet Macky Sall di quoi vous vous rendez compte ne jom mënul avec le man je parle avec le cœur hein. dama dama dama mënutul le cœur. Je man Macky Sall Je ne day di ci Sénégal quoi day ñu woyal ko woyam u y fecc quoi vous vous rendez compte kii lan lay fecc ñi ñi di ñaa ngi sonn Sénégal metti ñi ñaa ngi sonn lekk ñu naanuñu fajuwuñu di dee ci hôpitaux yi ah mbay mi baaxul mbënd mi di rey nit ñi am problème électricité ñu toog ay parce que ay 3 mois 4 mois ñu ndox sax bu ñu demee douche ngeen baal ma amuñu amuñu amuñu courant ah dëkk bi su région bi sous euh, région yi sonn nit ñi sonn booy bëgg a dee richesse bi nekk Sénégal yi nga jàpp ko pasar pasaree ko kenn waxuloo ko ngay fecc suñu kaw ko ngay quoi après gars yi di a ay sang vidéo c'est des lâches quoi vous êtes des lâches et que le message soit clair et que cet engagement là c'est-à-dire amul ben artiste d'où artiste moo xam artiste nga peut koo xam ne da nga yor kàddu askan bi sa vote sa carte électeur am nga droit voter ku la neex mais propagande di fen dinañ ko décortiquer ben par ben leeral askan bi xoolal c'est vous êtes mal parti li ngeen li ngeen bëgg def du munul nekk Macky Sall mënul sàcc élection yi presque sàcc carte électeur suñu carte jot jotuñu si wala suñu si jotee tamit suñu vote nekku si nga dem di voté ñu ne la fi nga voté woon di doof voté xamoo fooy voté yooyu yëpp am ba pare après après yow président njiitu réew les gens ñu pleurent ñaa ngi lay jooy faju ñu ñaa lay ñi ñaa non excusez-moi ma idée de baax quoi j'ai mis j'ai mis trop de trop de français ici c'est malheureux quoi c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux quoi je suis vraiment désolé hein bon tey nag sama live bi j'ai eu beaucoup de difficultés pour def ko am difficulté yu bare bare bare pour def ko waaw damay ni balu ak na quoi ci portable bi ni mi dano ci installation yi et tout mais j'avais pas assez de temps pare ma xone maa ngi jégalu nag quoi ci ni mu demee yep hein ah. di len balu ak bu baax bax di len wax ni lepp lu fi lu fi deg li ci djublu du dara lu dul defar Sénégal ibi bëtu nit ñi parce que dafa am ñi yété ak ñi yeetalaate te li ñuy def ni propagande politique bi ñuy def ni di nax naxsal askan bi dem leen ngeen lijjanti li Sénégalais yi sonne dem leen ngeen lijjanti li Sénégalais yi sonne Sénégalais yi sonn nañu Sénégal yi sonn nañ quoi ngeen ne fi di way di fecc président bi di ko way pour seen intérêt personnel Sénégal yi ñoo war a gore da ngeen war a gore da ngeen war a gore ngeen xool seen diggante ak seen borom xaalis ngeen di jox nii fajul benn soxla fajul dara xamu leen sax ni ngeen ko fekkee feebar yaa ngi fees dell xool leen li fi xew yëpp li fi xew ñaata nit ñoo fi am xaalis fii ci nguuru Abdoulaye Wade bi ana ñu tey dara amatuñ ko deseetuñ dara donc loolu moo doon message bi vraiment xam ne lu ñu ñor la ñu ñor nañu trop ñor donc maa ngi si si si si message yi euh, di wax ni képp peut-être euh, bon gis live portable moment bu muy daanu ngay dem muy dem di et wala ay xam nga euh, ngi ngi ngi di ci Karim poste portable mais bon dañuy def suñu lay kàttan rek di leen ñaan ngeen partager image yi partager leen image bu baaxa baax portable bi nak daanu deux fois fi ma tek affaire yi mo baaxul dama xat xama am ay bari bari nek ci yenn affaire yi di leen baalu ak di wax ni képp ko xam bëgg nga joko ak ñu may woote ci 77 810 17 45 77 810 17 45 77 810 17 45 jërë ngeen jëf Karim Dièye la ci télé ci poste tay ci ajuma ji wa wasalaatu wasalaam ala rasulullah